yi compagnie Serigne Sénégal c moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butigu c bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di mbind bi dina jagleel ko région yi di Matam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jiitu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépôt la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42

ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam su suñuy loxo suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom ak man te mooy borom sañ Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk Serigne Touba te yor yéene béy suñu borom dimbali ko may ko kattan akuk tal akuk man li nga xam ne yéene mën koo def ni mu ko bëgg defee te dimbali itam boole ko xam ne danañ ko jàppale ci loolee ba ni mu ko bëggee mu defe defe ko noonu man cee daje daj daje cee ngërëm Serigne Touba ak suñu borom te ñu moom li nga xam ne ñëpp képp koo xam ne itam lislaam moo la tax jóg te li li lii sa taxawaay bépp mooy fas yéen lislaam taxaw ak jaar ni mu war jaar ñu ngi ñaan suñu borom itam mu jàppale la yow itam jox kàttan ak wér ak tal ba lépp loo xam ne yéene nga koo defal lislaam nga mën koo defee ni nga ko bëgg a te jare ce te te daje ci ngërëmu suñu borom te ànd ña nga xam ne ñoom nga ko àndal ginnaaw loolu ñu ngi doon waxtaane ci ajjuma ji weesu xam le ne suñ borom day won na ne lépp loo xam ne mooy xéewal guñ soxla woo ak wala ak ak lu ñu àgg suñ borom defal nañu ko ci kaw suuf si huwa allati jaala lakumul arda dalulan mooy kon xam na ne jox nañu xéewal gépp ci kaw suuf waaye nag xéewal googee ngir ñu mën koo jot ni ko war a jotee dafa laaj ab taxawaay looloo tax mu wax ne fabsuu fi manaakibihaa mooy dina xéewal du gi nga xam ne moom suñu borom def ci ci kaw suuf bari na lool yaatu na lool waaye nag doo fas say loxo ngir jot ci aw day am ay jéego yooyu dox ngir mën caa jot waaye nag suñ borom mais wan wan na ñoo ñi nga xéewal googu day li muy bari bari nga xam ne dafa wax ne kuloo mimmaa fil ardi halaalan tayyiban mooy leen nekk suuf lépp day yéen laa ko jox na ngeen ko jëfandikoo ni ngeen bëggee lew na leen na leen doom loola nag ba mu ko waxee itam dafa am leneen lu mu waxaat loo xam ne kon dafa loo xam ne luy tënk ab jullit la ngir dafa wax ne yaa ayyuhal lazina amanu kulu min tayyibaati maa razaqnaakum mooy mu xam kon jullit sañu ta faggu na ko nam ko neexee sa sañu ta sañu ta ci alalam nam ko neexee ndax wala musrifu innahu laa yuhibbul musrifin kon suñu cee doxee ni nga xam ne ko neexee sañu ko faggoo itam ni ko ni mu ko neexee waaye dafa am noo xam ne la ko war a faggoo dafa am noo xam la ko war a yore ndax loolu mooy tax mu man daje ngërëm boroom ni mu ko bëggee kon mu mel ni lislaam day jox na itte lool ngëm yàlla ndax ngëm yàlla tax mu jox ko itte yu ji mu ko jox moom rek moo moo ma nekk ci yow mu dëgër mu doon loo xam ne moo lay conduire di la jaarale fi nga war a jaar di la di la teggale fi nga war a tegg wax bu ngëm yàlla amut maanaam doo yëg mën ngaa bañ a yëg dëgg-dëgg sa sa sa sa sa lislaam ndax ngëm yàlla rek mooy tax nga mën a yëg sa lislaam ba tax boo nekkee ci marché bi xam ne ab jullit la boo nekkee ci mbedd bi itam xam ne ab jullit na koo man di jaxasool itam xam ne yow ab jullit nga ba am na loo sañ ak loo xam ne sañu ko loola nag moo tax lislaam jox ngëm yàlla nga maanaam jox ko jox ko itte ju rëy waaye nag itte ju rëy jooju mu jox ngëm yàlla te ngëm yàlla doon loo xam ne ci ab xol lay nekk waaye nag suñ borom nañu ay màndarga yoo xam ne moo ni won ne lii ku koy doxe ngëm yàlla mënees mi ngi ci yow loola nag bokk na ci li nga xam ne moom la waxoon mooy koo xam ne da ngaa da ngaa da ngaa gëm yàlla gëm yonent bii nga xam ne moom la la yónni ci moom moom la yónni ci ñun boole ca nag ngëm googee amoo ca déng-déngi amoo amoo ca lenn xam ne da nga ci benn institut boo xam ne ba mu da nga ci def waaye da nga ko dëggal ci lépp sa lépp di ko doxee ci sa lépp nee na kooka tey itam lislaam doon la jaral dara na la jaral nga mën caa joxe sa sa sa jëmm ne la jaral itam man caa joxe sa alal kon ñooñu mooy ñi nga xam ne moom la suñ wax ne ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi dëggu mooy ñi nga xam ne itam wax seen gëm yàlla gañu woote bu dëggu la ginnaaw loolu mu xamlewaat suñ borom ne ngëm yàlla day bokk na ci màndarga yi koy wone mooy lépp koo xam ne fuñ tuddee suñu borom rek dana am lu mu yëkkati ci yow dana am yëg-yëg boo xam ne da nga ko yëg ci suñ da yëg ngir xam ne kattan ngaa ngoogu xam ne borom man-man baa ngoogu xam ne borom sañ-sañ baa ngoogu nga yëg loolu ci sa ci sa ci sa ci sa sa doxin yëg ko itam ci sa sa biir nee na loolu mooy tekki ne kon kooku gëm yàlla la boo déggee aay yi nga xam ne moom la suñ borom di wàcce itam muy alxuraan ji aaya boo ci dégg dangay ngay jàpp yow mii képp la ko suñ borom yónni ci yow suñ borom wàcce ci yow ngir nga war koo def ni nga xam ne mu ko war a nga defee ndax loola mooy tekki sa ngëm yàlla gëm dëgg doon koo xam ne itam sa boroom rek ngay nga doyloo ci lépp yaakaar ko ci lépp kooka mooy ki nga xam ne kon mooy ki gëm yàlla nee na ñooy ñi nga xam ne itam ñi di yàlla nga nekkee ci ñoom itam xam ne ngëm ngëm jëf jëfi ci biir xol lay nekk dafa mënut ñàkk ay mandarga yu ko yoo xam ne moo koy dëggal mandarga yooyee nag benn mu doon loo xam ne yaa ngi koy feeñale ci say cir wala nga feeñale ci sa am-am yi allazina yuqimuna sala mooy loo xam ne da nga koy feeñale ci say cir wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun mooy li nga xam ne da koy feeñale ci sa am-am mooy kon ngëm da nga koy da nga feeñal ci sa ci sa ci say cir nanga koo feeñal itam ci sa ci sa am nee na ñooñu ñi nga xam ne lañ mel day bu ëllëgee am nañ pay goo xam ne ci suñu borom suñu borom nag bi nga xamee ne wàcc na ci ñun lislaam le ko sayyidina Muhammad sallam dafa am ñaari mbir yoo xam ne jox na ko ite ite ju rëy benn bu njëkk mooy ngëm yàlla gi nga xam ne moom lañ doon wax beneen bi ci teguwaat mooy ndax dañoo xamal li ñu xamal ne ngëm yàlla maanaam li ñu won ne jox na ñaari mbir yi mooy jaamu yàlla yi ñuy def dañoo xamal ne la nga xam ne moom lañ ci war a jëriñ nga xam ne moo ñuy jariñ ci ci ca jaamu yàlla ga mooy dañuy ñu gën a rafet suñu jikko looloo tax ba julli bi nga xam ne moo gën a rëy mag jaamu yàlla yi suñ borom dañuy xamal ne tan tanha anil fahsaa'i wal munkar koor mi nga xam ne itam moom suñ borom moo wax ne maa ko moom maa koy maa koy fay li muy rëy rëy mu siyaama ko kutiba allasina min qablikum laallakum tattaquuna la wax kon mu mel ni jikko moom doon na loo xam ne lu rëy ci suñu borom ngëm yàlla itam yonent bi itam sallallahu alayhi wa mu bëggee tënkal li ko tax a jóg dafa wax ne innama bu'istu li utammima makaarima al axlaaq kon mu mel ni ngëm yàlla ak jikko doon na ñaari yoo xam ne mooy li ñu mën a jariñ ci àdduna mooy li nga xam ne itam moo mën a jariñ ci àllaaxira li tax nga ngëm yàlla doon loo xam ne moo mën a jariñ nag àllaaxira ndax ngëm yàlla bu nekkee ci yow mooy doon li nga xam ne mooy machine bi taal ci lépp loo bëgg a dugg danga ci dang nga da nga cay seet suñ borom di ko ci delloo di ko ci di di bàyyi xel suñ boroom bu dee jikko itam di tax mu am solo moo di ne borom dañoo bind ñu doon ay xeet yu wuute doon ay jëmm yu wuute ñu wuute ay man-man doon ay ñu wuute ay kattan waaye nag bëgg na kattan yooyee kenn ku ne jàppale ci sa morom man yooyee itam kenn ku ne mën cee jàppale sa morom te loolu xam nañ ne munee munees munoo jëfandiku munoo jot ci kattanu jàmbur wala nga jot ci man-manu jàmbur lu dul ni danga nga ko woon jikko yu tax mu mën laa jàppale ci la nga xam ne moom la man jàpp man laa taxaw itam ci li nga xam ne mooy sa itte kon suñu mi nga xam ne mooy boroomu jàppale te mooy boroomu man te mooy ki nga xam ne itam moo mën a dimbali doomu aadama yàlla na nañu dimbali ba ñaar yi nga xam ne ñoo gën a dëgër ci lislaam muy jikko ak ngëm yàlla ñu ñu gën ko bàyyi xel di ko waxee di ko waxee doon suñ làmp bi nga xam ne moom lañ teg suñ kanam ngir mën a jëfan ngir mën a jëfandikoo li nga xam ne mën a suñu wàcc ci ñun yàlla na suñ borom mi nga xam ne mooy kër borom kàttan tey ba mu mën dimbaleen ñu ci loolu bañ bu nekk ñuy bàyyi xel jikko di bàyyi xel itam ngëm yàlla gi nga xam ne mooy fondement l'islam loolu mooy moonu jëriñ rabbana laa tuzigh quluubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana